jël na premier juin daal di koy jagleel li nga xamante ne moom mooy mbirum set setal set setal mi ci réew mi setal na mim réew suñu set setalee ba noppi dañuy xumbal fuural mais day set setal lu baax la parce que réew dafa war a effectivement gis nañ ko moom ñuy set setal je crois que amul njëriñ ndax bañ a tilimal moo gën nañ dugal ci bopp sénégalais bañ a tilimal xam nga soo tilimul loolu doo set setal il faut que ñu yar sénégalais seen conscience ñu am civil ba bañ a tilimal journée tey bi dañ koy perte ba ñu ma sa setal de mais nañu def ci xelu sénégalais yi d' abord bañ a tilimal mais soo setalee te defoo seen xel yi da ngay tilimal kon chaque mois di nga set setal loolu ëpp njëriñ barki démb laa gis BRT bi ñu def ay magum jëmm jëkk fii ci benn quartier jël seen mbalit teg ko ci yoonu BRT bi man leen di yiir pour lan ñu ne ma soo yoon newu ci dëkkoo fi est ce que duñu defar conscience su ñooñu ba pare bañ a tilimal ba noppi sañ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum dama ko dégg ci benn vid vidéo mu ne fépp fu budget am ben volant amu fa yoon liggéey gratuitement te kenn du la fay budget dafa am ci walu nettoyage bi concessionnaire ñu war a setal dëkk bi ñu ngi leen yoral xaalis fayu ñu leen barki débal leen Moussa Balla foofa naa daal di recevoir kon yaakaar naa ni li ñu def ni ay journée set setal nañ def ci xelu sénégalais yi bañ a tilimal ba pare jàngal leen ñoom citoyenneté bañ a tilimal ba noppi te balaa ñuy set setal dëkkuwaay yi dañu set setal xol yi mais yow da ngaa fàtte président bu muy bu muy bu muy campagne bale la yoroon de. kon lii waru ñoo bett. waaw mais amul amul dafa jóg pour bale. amul ñu njëriñ yow demoo. man ah. yaa liggéey bi ma fi téye di. yow demoo. man ci nguy jomaay. nguy. Euh, woote jomaay nguy Pastef demut. nguy moom nguy moom demut moom. waaw parce que man maa koy fay <laughs> te mbalit mbalit bi <laughs> mbalit bi dafa am budget budget boobu dañ ko ci war pour ñu fay leen te sëñ Cheikh Tidiane Al Maktoum nee na budget am benn volant mënu fa tey ñi war a defar mbalit bi concessionnaire yaa ngi nii ñiy won mbalit bi suñ leen fayee ñu jël mbalit bi yóbbu ko kër bu nekk nga def fa te nit ñi raxas seen xol du ñii ñi ngi nii ñi jàpp Doro Gaye ñi yéene ko kaso am na ñu yéene Abdou Nguer kaso am na ñu yéene Tange Tandian kaso mm-hmm. mais ñooñu est ce que seen xol set na sa xol su setul bërëb bu ñu la dëkkal dafay tilim parce que li tilim bi nekk sa xol yi moom ngay wàcce waat ci biir kër gi yii du lu bees Macky Sall moo fi njëkk a initié clean day fan la mujj dafa tax ceeb bi yomb donc waaye bu set te amoo lekk amoo loo que sëñ Tuubaa da lay énerve. Abdoulaye loo ci yokk. Ah, set setal bi day yaatu. yow lu tax demoo ci yow nekk Sénégal ndax man géejawaay ba kenn ko setal gisuma ñuy bale ñoom gisoo ñu bale setal bi benn côté la jëm. populisme rek. populisme rek suñu setalee woon xool yi daal dina ma neex. populisme rek populisme rek yow moo tax nag fal kat lii moo lii lay indi populisme rek ñoom populisme rek fi mu ne nii. bale bi la ñuy jëlati nag forcé ñu ko une semaine. Mhm. fàtteloo ñu dund bi. populisme rek télé gi ñu télé moom dañ ñu ko bëgg a fàttali man daal gis nga. Mhm. te man premier juin sax dama ci dul dama ci dul def lu mel ne ay rassemblement yi parce que góor jigéen ko moom. Mhm. ma ci def ay rassemblement du set lu ma taqal kay laay def su ma ci mënee bañ a sangu sax du ma sangu. man de tey su ñu wootoon journée wàccee kaamil ci Sénégal. waaw ñaanal Sénégal mu tegu ci yoon. waaw may saluer loolu moom. dañ koy saluer waaye fu